Euh, may ba tey ñuy nuyoo euh, Aliou nga yor écrit jiite ay xale tey ngeen ñëwoon ci daje bi nga xamante ne mooy daje président euh, lan moo fi utee ci waxtaan daje bi. bon wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla rencontre ñu am ak waa ak waa CNG ñëw na fi ñu woo ñu pour xool nan leen war a gën a mën a taxawoo ci ci làmb ji fexe xool li nga xam ne moom nañu war a xalaat lépp lépp li nga xam ne moo waroon jëmale làmb kanam pour ñu fexee toog waxtaan ci échange échange échange la woon. di rafetlu loolu bu baax a baax di kontaan aussi tam ci li nga xam ne moom mooy waa ARELS parce que bi ñu fi ñëwee dafa am association boo xam ne moo yi ak ak école ba ñëwee nag ñëw nañ ñun ñëpp en même temps aussi amoon na yenn écurie yoo ñëw nañ mais bi ñëwee kontaan nañ bu baax a baax a baax ci contribution yi ak avis yi nga xam ne jóge na fi ku ci mel ne tey Paate wax na suñu président euh, Malick Ngingue wax na wax dëgg yàlla ma gënoon li ma gënoon bëgg ñu wax sax mooy représentation ARELS ci li nga xam ne moom moo di moom moo di CNG bi pour que ñu mën si am représentation bu baax lu war nañ ci ñun ñëpp kenn ku nekk loolu wax nañ ci ku mel ne Pathé ñun aussi tamit wax nañ ci ñun daal tey wax dëgg yàlla rencontre bi tey doon na loo xam ne tey buñ ci jógee fi mu toll nii lépp loo xam ne wax nañ ko tey CNG bi buñ ko jàppee buñ ko doxalee làmb ji moom dana jëm kanam ko yéen ñëpp da ngeen a booloo bootu ci ginnaaw Arends euh, est-ce que yéen am ngeen beneen kuréel boo xamante ne da ngeen fay dajaloo di wax di nasa ko nocc ginnaaw làmb yéen ñëpp ku ci nekk yor nga ay xale di leen jàppale ci làmb mais di ngeen daje bu dul Arends di nas ak a nocc pour lu jëmale làmb kanam. ñun moom wax dëgg bu ñu sañoon ñëpp dañuy ñëw dugg Arends parce que nee naa mooy association responsable écurie ak ak école de lutte à part loolu nag lu ñu am am nañu am ne fa la ñuy waxtaanee daanaka idée fa la jógee ku mel ne président Góor Ciss ay ñoom ay ñoom euh, Paate ñoom Modou Fall gars yi ñoom ñëpp ah ñoom ay ñoom yaa jàll ñëpp dañ ci kenn na sax idée ngay génn joxe ko ñu waxtaan si balaa ñuy def dara dañuy waxtaan ba pare ba tënk ñu doog a mën a nag génn proposé lii lañ bëgg ñun ñu dem wax dëgg yàlla noonu dem di woo nag écurie école yëpp képp ku mën a ñëw bëgg bokk arène si nga ñëw parce que mbooloo mooy doole loolu moo wax dëgg yàlla loolu moom bëgg nañ képp ku mën a ñëw adhéré si ARELS nga ñëw bokk ARELS pour ñu mën a pour làmb ji mën a jëm kanam quoi. ana Bàcc. Bàcc mu ngi si jaamam. ñu ko bu baax. waaw ah, munoo Paate munoo dem euh, ma lay nuyuwaat bu baax a baax a baax ci daje bi wax nga ci souligné nga ci waxtaan bi ci lu am solo euh, bëggoon nañ xam loolu nga fa jotoon wax lan la. waaw maa ngi nuyu waa ñi ñi seetaan Wassare Lamb yëpp quoi waaw du kontaan ci. recevoir réception bi quoi euh, ci CNG lu ñu recevoir waaw li ma fi wax mooy dama wax euh, pour suñu mbokk mbër yi suñu suñu rakk yi nga xam ni seen kase àggul fenn fi te léeg-léeg ñu bëre ba pare euh, mu am recours ñu gagné recours bi vingt cinq mille boobu pour ñu mën leen ko mën delloowaat. wax tamit ci formalisation des acteurs de la lutte ñu former leen parce que ñi nga xam ñoo yor école ak écrit dañ leen war a former ba nga xam ni dañu mën a xam li ñu war a liggéey ci biir école yi lan la beneen bi tamit wax naa ci tamit ci ci côté. Euh, site d'information tamit maa ngi ko doon bëgg wax mais am na ku ko wax site boo xam ne euh, ci la CNG di def information yi nit ñi soxla ci làmb parce que tey ji boo xoolee ARELS rek moo fa nekk dañu woo euh, président école yi yëpp mais tey boo xoolee association bi ñu nekk ñoom rek ñoo ñëw ñu ngi woo yeneen président école yi ñu ñëw adhéré ARELS pour di mën information di am information di mën a jàngaale biir ARELS parce que ARELS su nekk suñu ay papa yu mag ñoo yu yàgg si làmb ñoo fa nekk ñu ñuy jàngal làmb kon ñu ngi woo ñëpp pour ñu ñëw benn instant tamit bon euh, CNG bi moom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñoom quoi parce que nii mu commencé vraiment wax nañ ko tamit la respect des textes pour nit ñi di respecter textes yi amul mbër ñëw 9h du matin euh, la làmb parce que dafa am ñun ñun ay amateurs lañu dafa am mbër yoo xam ni dañuy set dañuy xaar seen dugg si. ku mel ni Gris Bordeaux dañuy xaar dugg seem ku mel ni Balla dañuy xaar dugg seem gis nañ seen dernier combat ban heure lañ ñëw stade loolu arrangé wul làmb. 8h ah, dugg si ñoom dafa bokk ci làmb. sa bokk ci làmb et puis tamit wax nañ tamit ci en général xam nga xam nga rek euh, kii bi moom a kii nii mais en tout cas daal ñu ngi wax respect des textes bu ñu waxee ni tey ji mbër mi 15 euh, personnes lañ ko may ñu respecté quinze personnes yooyu CNG bu mu xool ci 5000 francs bi muy bi muy bi muy jël ci surplus bi ba tax mu muy bàyyi surplus bi di bëri ba main courante bi di di di di dem ba di am benn ampleur boo xam ni ki affaire day jaxasoo day pëccoxoo ñun daal ci loolu la ñu gën a waxtaan. te bon bari na ci tamit loo xam ni wax nañ leen ko dëgg nañ ko incha allah danañ xam ñoom liñ mën a li mën liñ mën a adapté dañ ko adapté leneen li on verra. merci beaucoup jërëjëf mi ngi mi ngi jàmm. ndam rek bu soobee suñu borom. dégg nga euh, président bu ci nekk kilifa gi. président écrit kaay baax de Rufisque. jël ngemba door. meilleur écrit du Sénégal waaw. tey nga ñëw ci daje bi gannaaw ba nga ñëwee ci daje bi sax xam naa ne temps bi ak jugee Rufisque ak ñëw embouteillage bi euh, tënk na la ci lu bare bare mais am na loo bëggoon wax euh, kàddu gi jotul jot euh, lan la woon. waaw li ma buggoon wax mooy que ne ñun dañu nekk ay responsable des écrits bon ñun ñëpp ñu ñëw tënku ci ARENS donc ñun ñooy làmb parce que su président écurie téye mbërëm bu président écrit mbërëm est-ce que làmb dana am xam nga làmb du am kon ñun ñooy làmb kon ku ñëw ñun ñoo war a wane li tax nga ñuy jox gëdd bi ñu moom ñun ñooy wane itam li tax nga jox ñu cër mooy lan nañu fexe defar ay nit bañ a defar ay dof parce que boo defaree ay nit ba ñu nitee yow soo bëggee jàdd yoon sax ñoom dañu la jubbanti ñaanal la yàlla nga dellu si mais li bon mooy defar ay dof te ñun dañu jóg pour defar ay nit ñoo xam ne suñu ñëwee CNC bi jàkkaarloo ak ñoom danañ xam ne ñii ay nit lañu te ñi leen accompagner itam ay nit lañu donc foofu cër bi dafay am far force di nga jël sa règlement sax mais di nga ko dencaat parce que liy tax nga dencaat ko mooy da ngay gëm ne mbër mii ñëw taxaw nit la te ay nit ñoo ko andi doon nit nag taxul nga nite parce que mën nga doon nit sa xel matul ngay def yëfu nit ku nitewul. mais ñun dañuy góor góorlu di ñaan di defar ay nit ñoo xam ne même ñun ñu leen defar sax suñu bëggee jàdd yoon ñoom ñu jubbantuñu delloo suñu ñaanal ñu yàlla ñu ñëw nekkaat ca yoon ba xam ne saytaana dab nañu kon daal na nga gëm ne ñun dañu taxaw pour defar ay nit. loolu daal moo nekk li nga xam ne moo ñu tax a jóg incha allah bu neexee yàlla. am na solo di la remercier nag